jërë ngeen jëf mbokkante noot yéen ñi ñu doobu saa su ne seen bi di Info 2S TV dal ak jàmm tey nag mën nañ ne jàngat bi dina wuteeg jàngat yi nga xamante moo di TFM émission boobu nga xamante moo di émission bu mag di fa am chaque vendredi di jàkkaarloo bi tey nag ñu nar a ànd ak ki nga xamante moo di Bouba Ndour mu jëy yàbbi si li nga xamante moo di élection législative def si li nga xamante moo di jàngatam jàngat boo xamante ni bu am solo moo tax ñu nar ci ànd ak yéen bëgg tamit ngeen bàyyi fa xel déglu ko ba mu jeex ndax kàddu yi nga xamante ni ko ci yëgati nekk na kàddu yoo xamante ni yu ama am euh, solo la kon ñu déglu ki nga xamante ni moo di Bouba Ndour si jàngatu élection yi après bu ñu bu ñu installé bi dinañ am occasion peut dugg si si yenn détails yi liñ ciy xaar mais boo jàngatee li xew ci élection yi Ousmane Sonko xaw na leen a rey <laughs> ah dëgg la. rayul leen ndànk sax rayul leen ndànk de. moom moo élection yi pas une coalition c'est important. Mhm. je pense que mhm. man li révélé ci ci élection yi mooy y' a beaucoup de tonneaux vides au Sénégal wax naa ko fii y' a deux semaines ma ne leen politique politicien bi mooy lan nga pesé les discours mën nañu naaj si nga dem benn ñaar ñett ñeenti juróomi élection. Nous am benn député ça pose problème et tu as la prétention d'être un leader de l'opposition Voilà, soi-disant un leader parmi les leaders ça pose problème <laughs> parce que aussi mënoo yor kàddu rek di wax bu ñu xam nga Sénégal tamit wax dëgg suñu politiciens yi dañuy jaawale ñaar yooyu koo xamante ni maanaam yow sa discours rafet na da ngay def benn discours mu jàll rek manam nga jàpp ni yow mii nag manam, boo ubbee parti boo bien boo amee parti politique manam Sénégal yi foo woote fu ne dañ la fay wuy si quoi te alors que nag euh, demeewul noonu. loolu rek mën nañ ci jël misaal ci nga xamante moo di Pape Djibril Fall a rey ki nga xamante ni moo a rey parce que Bougane Gueye daal mën nañ euh, man tamit bu fekkoon ne wayoon na si bii nga xamante moo di jàkkaarloo bi di def ay jàngatam yu am solo ay chronique yu am solo kon yaakaar naa ne sénégalais dinañ ko gën a respecté sax par rapport ak bi nga xamante ni dugg na si politique bi quoi ak kàddu yi nga xamante ni mën nañ ne mu ngi ko doon mu ngi ko doon mu ngi ko doon mu ngi ko doon wax. dugg ci mbañ gàtt gi les gens se rendent compte que tu ne pèses rien du tout non dëgg la dafa bëri ñu bëri wax fii Sénégal te du ñu peser dara. dara wallaahi waxal dëgg de. te politicien nag saay hmm? la nga yor sa poche muy ay nit moom mooy mooy déterminer sa sa sa kii.

maanaam gis nga parti yi si réew mi jamono ji sax maanaam dañ ko war dañ ko war dañ ko war a limité dañ ko war a wàññi carrément parce que bu fekkee ne yow ku ku jug rek man bi ubbi wut sa benn parti par exemple man bu ma jugoon nii rek ma am benn mbooloo mu ndaw sama kër am benn mbooloo mu ndaw rek dem wuti récépissé taxaw ñëw am naa parti quoi bu élection jotee ma dem rangé si benn ginnaaw waay benn ginnaaw Ousmane Sonko wala benn Macky Sall ne sama parti bi kat Ousmane Sonko lay jàppale wala président Macky Sall lay jàppale te fekk na yow sa parti bi amul dara boo woote woon sa koñ sax mën nañ ne kenn du la wuyu suñu dul sa kër quoi te yaakaar a limiter mën nañu ñaari parti rek daanaka mën nañu ñoo fa am parce que ñaari parti la fa nit ñi gën a xam te ñaari parti yooyu toujours ñooy dem ay élection quoi pourquoi pas Sénégal mënuñoo limiter parti ba mat quatre parti kese nga xamante ni quatre parti rek mooy am si réew mi quoi bu ñuy dem élection ñu si des ñëpp seen si seen ginnaaw la ñuy rangé wu. mais boo demee élection damati damati damati amoo benn benn suffrage boo mënul kii mais war nañu xool est doo bàyyi. ah wax dëgg yàlla cahier de charge bu ñu teg seen kanam boo xam ne bu ko mënul mais ñu ñu ñu retirer. Mhm. parce que nous continuer tu ne peux pas être politicien à vie. loolooy dëgg de loolu rek kay dëgg de. bu gi xam nga def commerce. Du teg fii du teg fële Du teg fii du teg fii <laughs> qu'est-ce qui s'est passé il y a un parti politique qui est venu gagner élection. Même parti. Hmm. c'est pas une coalition C'est hein. un eh. parti c'est important. Hmm. vous fi daan gagner y ay ay coalition parti bi nga xam ne moom la ñu jëlee kii bi euh, APR. Mhm. boole ak ñooñu ñëpp mënuñu sax am groupe groupe parlementaire. te APR coalition la doon demee mooy coalition Benno Bokk Yaakaar. président Macky Sall bàyyi fi ndo ndono il est parti avec l'APR. il a fait une campagne mais ba non non il est parti avec la l'APR. moom laa lay wax ni dafa dem ak APR ku la newoon président Macky Sall ak ak Benno Bokk Yaakaar dinañu dem ba du am benn groupe parlementaire bu mën 17 depuis, di ko gëm. mais parce que ku iñaane sa ndono c'est ndey du ñaaw. Mhm. PDS mais des choses il faut les dire ils se sont accrochés à quelqu'un qui est là-bas depuis xam nga ñaata at. benn waa joo xam ne ñëw fi tegu fi nga topp ci topp ci topp ci pendant des années mais lan moo xew pour man le constat parce que les choses il faut avoir le courage de dire ça mooy. élection yi ñi Ousmane Sonko faloon ci élection législative dafa leen folli dafa wane. maa la ko wax nekk li ngay jar nan waxante dëgg te yàlla tax am na ñu bëri ñu fi PDS bi ñu àndee euh, intercoalition bi yàgg naa ko fi wax fii boo ko waxee ñu foog da nga contre benn parti fekk c'est la réalité bu ma àndee nga am 10 ma bala fa ànd man kenn nga am 2 c'est parce que ba ma àndee ak yow ba pare jàkkaarloo yow nga am 2 mooy que sama jàppale gi moom te dafa bari ñoo xam ne dañ leen yóbbaale woon. loolu moom yaakaar naa ne du événement te yaakaar naa ne amul benn koo xamante ni nekkoon nga fi député jamono ji nga taxaw di bañ loolu ne Ousmane Sonko moo taxoon yow nga nekk député moo xamoon ñu nekkoon ci coalition Yewwi Askan moo xamoon ñu ne ñu nekkoon ci parti comme parti PUR wala yeneen parti yi nga xamante ni bokk bokk bootoon nañ ci ginnaaw coalition ba euh, Yewwi Askan bi quoi ñu si nekkoon ñëpp nekkoon ay député Ousmane Sonko ñoo taxoon ñu nekk ay député ñu nekkoon ay maire sax mën nañu Ousmane Sonko moo taxoon ñu nekk ay maire quoi te yaakaar naa ne te loolu duñ toog fenn di ko wax te di ko di ko santé tamit quoi. c'est loolu moo fi jëm dafa bëri ñoo ay tolo vide ñoo xam ne ku nekk ku wéet xam sa bopp. Mhm. damay wax tout le temps gars man ku wéet ci wéet xam ku la mën de neex a def ay sondage mais am na ay ay homme politique yoo xam ne doo mës a daje ko ak koo xam ne man danaan man diw laa faral te ñoo fi ëpp tour na. Mhm. dama naan mais attends dix personnes j'ai jamais cent personnes j'ai jamais entendu kii mu ne man kii laay voté après mais ma ne donc kii il a un nom il a un truc mais amul amul nit. C'est une catastrophe hein, pour l'opposition, ce qui se passe. <laughs> Aujourd'hui, nous baissons du nous ñoo ça, nous sax Nous, ne mais mais complètement mais c'est pour que les partis traditionnels. ils ils sont à terre. ils sont à terre parce que nous, ñu à terre diamant euh, ak ak Macky intercoalition non parce que ñoom ñaar ñoo gën a jege wanto quoi. ñoo ànd rek te ñëw ko mais li lay jëriñ <laughs> lan foofu noonu tamit quoi nag Bouba Ndour parce que loolu noonu ànd boobu noonu du nekk avantage ci ki nga xamante ni moo di euh, Amadou Ba parce que Amadou Ba bu fekkee ne moom dafa am parti wala moo am coalition coalition bi moom dem dugg ci li nga xamante ni moo di APR ñu boole ko mu mooy takk wàllu yaakaar naa ne député ya nga xamante ni moo si moo siy soqi ko. jàpp naa ne kon takk wàllu wala APR ñoo si ëppale ak député quoi te kon bu boobaa du am intérêt si moom mi nga xamante ni moo di Amadou Ba quoi te nga xamante ni fa la Macky Sall jaar ak moom xel xalaatul mu ëlbatiku waat ay élection législative ñëw waaye wala ay élection ñëw mu dem di ànd ak ki nga xamante ni moo di Macky Sall parce que ay élection présidentielle moo ëpp doole donc sax parfois ñu bëri ñu ngi naan élection législative moo ëpp doole quoi mais élection présidentielle yi gis nañ Macky Sall ni mu defoon Amadou Ba ngemb ko ba nopi ëlbati ko di gol ay tangam pour bëgg mu daanu quoi loolu yaaka naa ne Amadou Ba du xam loolu ba nopi nak ay election ñëwaat mu naan day dem and ak mom xalaatu ko sax loolu. c'est une question légitime ñoo fi nekkon depuis 12 ans kenn campagne nga am ben ki parce que loo yor Ousmane Sonko sénégalais yi desalu ñu ko dara c'est une ma waxoon naa ci élection président c'est une révolution ah. lu fi musul am la rek il a tout pris ah. lu fi musul am mo fi am. fofu nak la d'accord ak yeen que ni lu la nit ki mën ti jox lañ tay liggéey

boo fi gén génnee Farba a ngi ranger les murs c'est grave ñoom waxante dëgg. donc Farba Ngom xamul fu mu jëm. sa député bu jógee si Macky Sall xamul fu mu jëm quoi. je suis d'accord te mënut a créer parti boobu. c'est boo xam ne bu am importance la mais sax nit ki nag da ngay am fit wala nga bañ ko am fit moom dafa dafa jot politique moom dafa ànd ak fit. waaye bu demuloo dikkuloo naan wuyu Seck dugg na fii génn fii boo leen bëggee am avenir aussi da ngeen di seen bopp.

man la man la de bu ne moom daay fekk maanaam nga jógee ca man la man la nga doon wax parce que nag euh, toujours comme ni nga ko waxee rek maanaam Barthélémy Dias ki nga xamante ni moo di euh, Bougane Gueye Dany Anta Babacar Ngom ñu mag ñooñu baax fi nga xamante moo di Dakar googu jàppoon nañ Dakar ni moom bu ñu fa yéegee dañ koy taxani rek def seen poste jàll ak moom ñu ñëw Ousmane Sonko maanaam mujjee ñëw fi nga xamante ni moo di ci capital def fa campagne am maanaam ëlbati affaire bi taxañ ko façon taxañ boo xamante ni maanaam moom moom dafa jéggi dayo te mën nañu sax Ousmane Sonko def ko dara ginnaaw lépp man nañ ne Abbas Fall la ak Ousseynou Ly surtout nag ak ki nga xamante moo di Abbas Fall Abbas Fall moom mën nañ ne jamono moom mooy baram Ndakaaru Njaay gis nga Barthélemy Dias na mu ko dàqe woon fi nga xamante moo di sa mairie jàpp naa jamono ji nag ko coûter cher bu baax a baax a baax te jàpp naa ne ba démb doon tey moom du ko fa mos a dàq ndax man nañ ne lii nii yëpp moo ko yóbbee Abbas Fall mi mu fa jëlee te Abbas Fall moom jamono ji man nañ ne mooy borom Dakar il faut que. les partis se renouvellent. non en fait Bouba voyez, mel ni nga un créer groupe de rap 2024 nous le bi ça me correspond ça correspond non non non non non c'est très difficile. on est dans non, euh, culture. Ouais, musique eh, affaire. c'est très difficile hein, de de

transhumé moom du fi njombe ay transhumance moom du fi ay du fi njombe quoi te yàgg na si yéen politiciens yi Pastef te Pastef dem fa moom mën nañu guddi ñu toll nii moom <laughs> nekkul gàcce quoi nekkul gàcce ndax gis nañ ponkal yëpp yoo xamante ni yor nañu ay parti wala yor nañu ay coalition yu mag dem dem dem dem randu jë dem randu jë fa quoi Seydina Limaamu yàggul ko laaj mu ne la. li ñuy waxee kon moom mën naa jógee PDS dem ci beneen parti. waaw loolu dugguma ci ci biir débat. waaw waaw moom laay wax moom laay wax nii. yi soriwuñu. dama ne sëñ bi le politique dañ nekk moment bu fekkee da nga nek nit bu cohérent appel du pied day am ñun dañuy tok di xam nga à force ñuy tok ci émission yi dañuy def ba nga xam ne dañuy am yo xam dañ koy percevoir c'est normal dara newu aussi, dara nek ci c'est-à-dire que xeex n'a dama ñëw ci plateau yi wax ni dama xex d'accord mo ci li parce que pour moi, c'est très simple so d'accord aussi quand on n'est pas d'accord on dit quand on n'est pas d'accord avec un parti ton parti da ngay démissionner man gëmuma nga naan wéy ñun dañuy courant bi pour mu am da nga naan ko àndatuñu bàyyi naa boo waree dem fenn nga ne fii laay dem mu jeex mu munoo nekk ngarale wéy sekk kii lañ doon jàppale parce que gannaaw moom dem mais tey jii li am li am ba am am ba am mooy que dañu war a poser question bu mag avenir u parti politique u Sénégal yi. Mhm. leadership bi ñenn ñoo ko yore. c' parce que ñi fi nekkoon ñëpp dañu ndar <laughs> loolu jarul laaj boobu tamit yow. Ah, ñëpp xam nañ fan la mi féetee.

Euh, pois bi ci nekkoon man nga ca euh, euh, mag kii mu tudd président Diomaye Faye ak Ousmane Sonko pare nañ si pare nañ ci li leen yàlla li pour man tere Ousmane Sonko li ko Sénégalais dafa musu ko musuñu ko defalam politique ci histoire du Sénégal la balle est dans votre camp yéen a xam nan ngeen koy doxee mais Sénégalais moom wàccoon nañu ak yéen et puis il faut pas que ñu reste ci ay 54 pour sax boo gagné rek ñëpp yow lañ voté parce que yaay seen njiit ñoom ñëppoo ko loolu de mooy li wér maanaam nga bañ ko wooteel leen ñàkk ko bañ ñàkk leen a wooteel terewul ñoom ñu gañe ñoom ñooy sa président far la force mais mën nañ ne ñoom xuuf pa la ñuy def xuuf pa bu fekkoon ne damaa nekk dama dama damaa Kajoor ak Bawol di égaat eh waaw égaat ñoom defe naa ne égaat lañ koy wax Ousmane Sonko dafa xuuf pa bu fekkee Saalum laa nekk Casamance ma ne bul bu ñuy bul Ousmane Sonko dafa xuuf pa mooy maanaam dafa gañe lépp gañe fépp gañe ñëpp te maanaam nag te moom kenn kese la maanaam un contre tout mën nañ moom la Ousmane Sonko def ba noppi nag gañale gañe gañe goo xamante ni bu extraordinaire mais comme ni ko boobu waxee rek mën nañ ni a sonn jamono ji réew parce que lépp dafa bi nga xamante ni Sénégal yi jox nañ leen ko kóolute gi nga xamante ko waaye président Bassirou Diomaye Faye comme ni mu ko waxee woon euh, nga xamante ni Bougane Gueye doon na dem fa fi nga xamante ni moo di Bakel te ñu tere woon ko am na kàddu yi mu sa waxoon mooy que ne maanaam Sénégalais yëpp moom mooy ki nga xamante ni moo si gën a am ay responsabilité parce que lu yem ni réew lañu ko jël yen ko ko responsabilité yooyu nag bu ñu ko yen nga xam ne yow mii nag responsabilité dëgg lañ leen yaakaar naa ne di nga am yenn taxawaay xamante ni yu dëgër këcc lay doon te tamit il faut nga am ñoo xamante ni ñoo lay jàppale pour nga gën a mën a taxaw taxawaay bu dëgër pour a affronter ak jafe-jafe yi nga xamante ni koy dund. Ah, Sénégal ñëpp ñoo yor lépp gars yi jox nañu lépp Sénégalais yi desatul

ay ja bu ngi noonu kon loolu la ñu naan di loon tey mbokki internet yi wax leen ñu seen xalaat ci li nga xamante ni moo ci commentaire yi par ko moom daal euh, bàcc na gars façon bàcc yoo xamante ni daal kenn xamul nu mu toll te ñoom moom mii nag maanaam parti la demee mais demeewul ak li nga xamante moo di coalition parce que euh, parti Pastef bi rek dañ mën nañ ne moo battre coalition yi nga xamante ñoo demoon ñëpp te ñu tolloon ci 40 coalition wala 40 parti moom mu ñëw 41 wal ko te loolu nag yaakaar naa ne gàcce la boo xamante ni ñoom sax xamul fan lañ ko war a waxee euh, nekk ci pouvoir bi tekkiwul ne yow mii nag forcément da ngaa war a gagné quoi. donte nag moom moom lañ joxoon li nga xamante moo di pouvoir bi à 54 pour cent kon élection législative bi bu ñëwee dafa war naa mën a a gën a yomb waaye warul woon a xëy na am na ñu bëri ñoo xamante ni séentewuñ ko nii ne Ousmane Sonko mën naa gañalee parce que ñu bëri kat dañ doon wax ne Ousmane Sonko mi du gañe dara du gañe sax li nga xamante ni moo di ndagaalu njaay bay gañe war feneen quoi mais gis ni bàcc yi nga xamante ni moom la bàcc gaay kon ak ci sama gaay ñu jox leen dig daje ci kanam ak beneen vidéo incha allah jaa ngeen